ci may seen de presse. ñu di ci ànd ak El Sall dootuñ ko fal ci élection bii di ñëw de marti tali du samay kaddu de waa MAP ñooy wax kon ci tribune yéene kay njiital mouvement d'action et d'alerte au peuple sénégalais Mamadou Kani Bey waaw nee na dinaa leen xamal juróom benn ba mbaaba kumba yoo xam dugal kon nguuru Macky Sall mu njëkk ba mooy phosphate bu maatam bee ak oruk Sabadola ah lii rey Macky Sall ca la bokk de ñaareel ba mooy audit yii kon sénégalais jàpp nañu ne léegi kon ñu daal di koy fàtte lii rey Macky Sall kon ca la bokk de ñetteel ba mooy fal gi nga xam ni kon Macky Sall kon mi ngi koy fal ñenn ña lu ci mel ni Seydina Kane ak Aminata Niane ñi nga xam ni kon ci nguurug Abdoulaye Wade gii la ñu nekkoon te ñoom ñoo doon xamle kat wàllum rupture la woon woon ni na lii rey Macky Sall kon ca la bokk ñeenteel ba mooy Cheikh Kanté njiital port autonome gu Ndakaaru gii ak na mu yoree kon kër ga lay rey Macky Sall ca la bokk de juróomeel ba mooy tribunal bi nga xam ni kon taxawal nañ ko nga xam ne daal dañoo am ab xaalis te xaalis woowee lewul waaw waa commission woowee eh, daa war a def kon kéemtalaay kàttanam ngir kilifa yi nga xam ni kon ñoom ñoo fi nekk bokk na ci président de la république Macky Sall ci boppam ak premier ministre am Aminata ñu gindi kon nit ñi xamal leen xaalis bi nga xam ni kon am nañu ko diggante 2000 ak léegi nii fan la ñu ko jëlee lii rey kon Macky Sall ca la bokk juróom-benneel ba mooy jafe-jafe yi nga xam ni kon ni mu ko nañ ko ci wàllum courant bi waaw ak wàllum ndóol gi ñu xëyee muy gën di yéeg wàllum pauvreté waaye tamit wàllum inondation yi lii daal ay gàllankoor la yoo xam ne lii rey kon Macky Sall ba ña koy waaj a attaqué de ubbil enquête yéene kaay nañu daal audit yi nga xam ne kon yëkkati nañu ko ah musiba mbaaba kuma yi nga xam ne kon na ko a koo jur Sénégal ci boppam nag lañ ko xamee mooy réew moo xam ne réewum dalla waaye gis na suñu gaal gii mi ngi jax-jaxi kon di bax ci suuf maratey taali bu ñu sukkandikoo daal ci ay xibaar ay séeréy wóor am na ab plan boo xam ne kon lal nañ ko ngir daaneel kon nguur gi déstabiliser ko la ilaha illallah ah la ko wax te ñooñee nag di ko def maanaam bokk na te ñoo xam ne ci wàllum dundinuk askan wi ñuy yëngu tamit ñoo xam ne kon ay politiciens lañu lëkkale kon seenu doole ñi ngi xam le ne ñi ngi amal kon ay réunion secrète yoo xam ne kon kenn xamu ko te bu ñu sukkandikoo nag maanaam ci ay seede yoo xam ne sax ay takk der lañ force de sécurité yi la ñu bokk waaw gis nga coowal cantakun yoo jee nga xam ne dañoo feesoon ci ndakaaru njaay jël joob gile tasaare lépp loo xam ne kon nekk na seenu kanam maanaam loolu lancement bi la de ah lii di ko gën a garaaw laa ilaha illallah laa ilaha gi ne te xam nga ne kenn mënu cee génne waa parti démocratique sénégalais ak ñenn ñoo xam ne kon ay kilifa diine lañu ñoo xam ne ñaanuñu yàlla Macky Sall kon yàgg ci gi dañoo bëgg kon dekkalaat cosaan indiwaat fi kon ab musiba mbaaba kumba boo xam ne moo fi doon faral di am te ñaap ñi ngi seede Abdoulaye Wade ca 1981 ak année 90 jaxal Ndakaaru njaay jël jóob jële ba muy jax-jaxi ak ay manifestation ay oto di explosé fu ne ki nga xam ne moo fi nekkoon baax ba dee le gentil Abdou Diouf waaw da daan mujj kon obligé suul dossier maître Babacar Seye waaye tamit woo ci taabal waxtaan taxawal kon ab gouvernement union enquête ko Macky Sall kon yëg na musiba mbaa ba kumba bi dafa seene wu la def nag ni Abdou Diouf daa di am na ci ab naje moo xam ne ña fa nekkoon bëriwuñ sax ca pale ba Macky Sall la moo xam ne lu leer naññ la Macky nee na je ne reculerai pas je ferai sàll ngaari lam tooro barke rasuulaay ah Macky Sall ne du ma dellu ginnaaw te dana jàkkaarloo kon ak ñoom Macky Sall ngay jàkkaarloo ak Abdoulaye Wade libération yéene kay ne Ablaye day lam doon sàkk mooy ak ak yellee fam rek ci njiitum réew la woon waaw daa am lu mu yeyool Macky Sall bañ ba tëdd ca suuf Abdoulaye Wade kon mujj mer seen xuloo ba ñoom ñaar ca birinoo jaataa la doon jaar baayu Karim mer lool waa Touba nag meral nañu lool Macky Sall nguuram lu tax parce que président kat li nga xam ne suñu cosaanu réew la Macky Sall daa taxawal kon ab gouvernement ah waa Touba yëgunu i nunu ah. waaw ngir nag kon defar nag mbir ma moo tax premier ministre Abdoul Mbaye ak directeur de cabinet wu Macky di Mor Ngom ne mes na men teg dem ca Touba gee Abdoulaye Balde ci yéene gi ne nguuru Macky Sall gii ay cuune lañu amateur lañu lambatu lañu fi nekkee ba ñu fi dikkee ba léegi wàllum lambatu kese lañu fi nekkee dañoo deful benn jëf bu dalub xel dund gi nga xam ne waxoon nañ ne ñu ko wàññi ci bennoo bokk tas yaakaar gii France dal di dafuñ ci ba dara booloo jeex gis-gis gu gàtt lañu am Abdoulaye Balde njiital union des centristes yi Sénégal yamu ca ndaxte nee na ba ñu dikkee weeru avril ba léegi ni lay cacophonie taf yëngal pëccaxoo làmbatu goo xam ne la nu ni miku ci yoronok askan gi marte itali maire bu Ziguinchor ne xel xalaatul sax may dugg ci gouvernement wu Macky Sall bi le ci opposition bi laay des ba ngu Macky Sall bee bëgg a dëju barke Rasuul laay laas ne njabootug Macky Sall googee coalition Macky 2012 ah, organisé nañu ab ndëpp de waxtaan seen biir de Ansoumana Danfa ne Macky Sall daa kon ay bëtam xam ne àndandoom beeg Moustapha Niass Tanor ak Idrissa Seck ak ñoomin seen amul amul benn ëllëg avenir ca boppam kon moo ca amul ndaw APR dëkk ca Thiès gée ci laas yéene wax nañu Idrissa Seck lu toog ah, lu daju waaw parce que xamal nañ Idrissa Seck ne ko mënoo nekk allié di ànd ak ab gouvernement ba pare di génn kon ci mbedd mi di xaste ñi génn ci mbedd mi cantakun yo tribune yéene ne njiital cantakun yoo yaaye dellu na kon ca Thiès ah liberté provisoire bàyyi bu na gëndiku le populaire ne Cheikh Béthio Thioune ca Thiès tribunalu Thiès ci suba ca coowal cimenterie Dangote wàllum drogue bu fort bii ñuy tudd kon Luc Nicolaï ba ñaar ñi nga xam ni kon rey nañ leen ca Medinatul Salaam coow la de coow am na ca ceeb ba Moustapha Tall ci direct info ne xaalis bu salte bee lëmbee ëttu ceeb bii xam ngeen lan moo tax kon ba indeetuma ceeb ah nguur gi ci boppam lu ci toll ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci ay millions la yoreel ñiy indi ceeb kon ci biir réew mi ñeenti atu yàllaa ngi ni le te gis nga nga xam ni kon moom la ñuy dund yërnul ma leen benn milliard ak juróom coppet jël ko ci sama compte ba ngir ma génn ca kaso ba Macky Sall day war naa def ko ni Barack Obama le pays au quotidien ne maître Aline Badara Cissé ma nga woon ca Touba ah ay mu xaddamu murit kese ko waroon ABC te maître Aline Badara Cissé moo mais ne ko jàppale Touba bari na Macky Sall kam jàppale mooy ministre de la femme Mariama Sarr laas ne président de la République day gis nga Mariama Sarr ministère ba mu yor rëy ga mu yor kaar masàlla waaw dollil ne ko ca direction du développement social et communautaire oh réew koo jébbal kon député yo am na lu lëndëm luñ ca gis de marché yaa ma neex jox nañ ko benn société bu nekk ca France kay te appel d'offre ba kon yëkkatee guñ ko waxuñ kenn indil sa dossier Le Quotidien yéene kaay ne taxawal nañ sànca ba de musée national ah chinois yi de gedd nañu kon arène ba lu xew fukki milliards ak ñaar tàbbi na géej allahu akbar laa ilaha illa allah cay <laughs> ana président président day jox na kon ndigal Youssou Ndour bu ñu sukkandikoo ci tribune yéene kaay ngir kon waa ji dem de Walf Grand Place yu Youssou Ndour kay dana jëlaat micro ba de Youssou Ndour ci tribune yéene kaay ne ma ne dinaa commencé waat di wayaat te dinaa commencé waat di feccaat say <laughs> Ndour Waly Mbergane ah maa la wax lii est-ce que vous êtes toujours là gars yi ne